kon nag dese nañu quelques minutes wala une heure de temps laa jaangu noonu ba bu yombee daal ma tontu ba jëfe ma bind jox oustaz. ñu ngi nuyu di ziar te di lal Serigne Cheikh Mbacke egg si na fi sànq euh, ñoo julleendoo timis mu ngi nii toog euh, oustaz Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal neel dalal jàmm. waa kon nu tàmbali ci laaj yi. laaj bu njëkk. kii mu ngi laaj nee na ci biir weeru koor ci guddi gi mu ànd ci boroom këram ba noppi te jotul a sangu set ba bët set ndax loolu dina yàq koor gi subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim tëdd guddi joteeg sa soxna wala soxna joteeg sëriñam te jotuñoo sangu ba bët set ndax dana yàq koor déedéet loolu di yàq koor koor geeg loolu jotewuñu dara ginnaaw la xew ca guddi ga la xew dañoo xëyaale janaba xëyaale ba yàqul koor moo ku tëdd ba bëccëg gént am lu génn ci yow ñoo bokk yem loolu tam yàqul koor wallahu taala alam wa ci laaj ba am solo bi te mu ngi yor soxna Sénégal di ko defal lu nekk jërëjëf li ci islaam wax mooy na na def lu équilibré mooy ku yor ñaari jabar te yemale woo leen bu yomal xiyaamee da ngay sa genn wet gi day yàqu ginnaaw daa yor fi yor fële na fexe ba seen diggante doon lu lu jege mbaalu lu yem ngay defal kii ñu defal kële waaye bàyyi kii te defal kële moom lislaam mayu ko kenn bu la kii mayee nag mbaa mu teggi la li nga ko war a defal su boobaa si jaan wàcc na waaye jabar ab am amam du tax ñu ne la bul ko defal wa shukran ci laaj bi jërëjëf oustaz kii nee na ñu ngi laajte waajur nga xam ne dañuy forcé seen doom yi mu tàkk mu seet seeni mbokk ne leen ma leen may jàmm la ma leen may koo xam ne bokku ñu <laughs> euh, golo daa tolloon ci takk jabar mu gis bëy wu rafet daa ne papaam kii laa nopp moom golo papa ji ne ko nu ànd nu wuti golo ni nun mu ne ko mukk bëy lay takk ñu coow ca ba papa ji convaincre golo mu takku golo ñu dox tuuti mu am ca bébé bébé golo ñu dox tuuti benn ponkolo xaj dàq leen papa golo départ maman départ xale bi départ jabaram ak doom ji départ bi ñu yéegee ci kaw garab gi gestu gis leen mu ne ko bés bii moo taxoon ma ne takkal golo comme nun ndax boo fi takkoon bëy bu nu xaj dàqee xawma ku yéeg waaye doon sa jabar <laughs> am de loolu moo waral ci niñ koy xóotale léeg-léeg mu metti waaye su xóotul am na solo cest à moom rek ngay takk doo ko fi takkee déedéet sa doom bu ne dama kii laa bëgg su fekkee d'accord ci waxal li tax d'accord ci te ko takkal jamono ñooy waaye nag doo ko fi takkeek muy ndëg may dee loolu nag mooy indi ñool ñool jag jafeñ-jafeñ ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu yonent bi nee na ku ñëw bëgg a nekk seen goro xool leen diina ja ak jom ja bu amee diina am jom bu leen ñaana jabar may leen ko waaye bu leen may jabar ku amul diina ak ku ñàkk jom wa shukran ci laaj jërëjëf oustaz ñu nee na ku jigéen boo xam ne dafa bugg a ñaan ku góor ci baat waaye dafa fekk ku góor ci yaramam neexul maanaam daal àndul lool ak xelam xaj nee ndax su fekkente ne may na ko baat dagan na waaw su fekkee am na nay seede de ci loolu dagan na bu dee ko ànd ak xelam nag même bu dul seede dagan na waaye ko xam ne ki xelam nekku fi moom koy ñaan baat day fekk ay kilifaam teew ay seede teew bu la mayee baat dana wér wa shukran jërëjëf ki nga xam ne xamul ay farataam waaw waaw maam suñ tubaab ci masaalik nee raaytu ina naas yafaluuna kama raaytu naas yaabuduuna mu ne borom xam-xam yi nee nañ koo xam ne su jullee ba noppi nga ne ko luy farata mu ne lu ma ci xam jàppee ba noppi nga ne ko luy farata mu ne lu na borom xam-xam yi nee nañ kooku njàpp la ak julli ga baaxu yàlla daal moo fa mën a jaar yéwénal ko te baal ko waaye daal liñ bëggoon mooy luy faratee julli nga lim luy sunna ya nga lim te xàmmee leen ñàkk nga xàmmee nag lu gaa yi def nga def loolu mën naa indi ñool-ñool boo ëllëgee ci waxi borom xam-xam yi waaye nag mbaaxu yàlla bu ma àgg na ci nit ki mën na ko ñàkk xam na di def ñu koy nangul yàlla nu nangul mu gis ab xale lu jigéen bugg ko di ànd ak moom dig ko ne dina ko takk ndax aay na walla aayul aayul de waaye loolu moom bëggewuñ ko noonu ndax ngoro gu yàgg jigul boroom jabar ku xas am jabar dangay bàyyi ba fas yéene nga dem takk te indi waaye ngoro yu yàgg yooyu jigul boroom jabar moo tax bëgguñu ko ndax ku say mbokk yépp xam foo jëm doo àgg loolu ne mën na caa gàllankooram la ca tegit derub ki nga xam ne moo dugg te wax mën na caa tàmbalee yàqoo aay wuñ ko takk ñaareel waaye nag waajaay wu yàgg wi daal bëgguñ ko ci bëgguñu it toog diir bu yàgg te ñaareeloo door di ñaareel ci xale bu ndaw sunu borom nee na ku bañ sa kër tas na say jabar maase wa kawaayiba atraaba wa kësën di xaaqa ay jabar dañuy maase kaas day fees jërëjëf <laughs> dafa am uh, daayira ñu. ndax soxna si nee dafa am daal dañ ko oo kër ga ndey mu bugg a dem nag balaa muy dem daf balaa muy dem soxna si salaam nii waa ji tàccu leen ko ok <laughs> waaw ma maa leen di fay nuyoo di leen sopp ndax koo sopp sopp na la te maam Cheikh El Hadj daa waxoon ca Taysiir ahlul mahabbati ahlullahi yallaahu nee nag ñépp ñu soppante ay njaboot yàlla lañ te nit ne ko sopp naa la li nga ko wax mooy biyeeb aljanna ngi nii ndax almutahabuuna fillaahi fi zilli arshi kon bu la ne sopp naa la rek yëgal ne yër na la aljanna waa ji day dox ca mbedd moom yàgg romb yonent bi ne toog waa ji ne ne yonent bi kii maa ko sopp yonent bi wax nga ko mu ne ko waxuma ko mu ne ko demal nga dab ko ko nga wax ko ko ndax ku sopp nit da ne ko sopp naa la kon nag soppi Oustaz Alioune Sall yi man di sopp naa leen waaw waaw yàlla noonu yàlla boole sopp allahumma amiin wa shukran ci laaj mhm. ki nee na mbooloom jigéen fu mu daje ndax kenn ci fen woowa mi mun na leen jiite nu julli ak ci yaan anam jërëjëf ci laaj ba solo bi amoon na jënn jigéen ca jamono yi sallallahu alayhi soxnaam la woon ummu salama la tuddoon mu tëdde woon ko boroom loxo bu gudd bi noonu la tudde soxna sa boroom loxo bu guddi bi cest à soxna sa dara daawul yendu këram mbaa mu fanaan fa loolu joxe na ko muutal ko nag jàkk ca kër ga daal di koy wutal noddukat bu góor bu tisbaaree mu noddu bu takkusaanee mu noddu waaye bu noddee moom ko góor ko naan coow bu dem ñibbi soxna sa moo jiite soxna ya ni moom nu mu daan jiitee day taxaw ci sàppe si ñu féete ko nii ñuy féete ko nii lu def ñu def ko amul jottali amul liqaam ca kaw amul nodd ca kaw jigéen daal ñëpp naan selaw mu jiite leen bu nu mu def daal lu ñu def ko waaye nag daawul nekk ca kanam nag ñu sàppe ci ginnaawam góor it daaw ca bokk wasa ko ram ci laaj bi nee na kii dafay liggéey liggéey bu metti diis mu ne weeru koor bi daal dafay lépp bàyyi bég koor gi passé mu fay lan la ci lislaam waaw mbirum koor de dafa am sew-sew bu am solo bu ci suñu borom wax bi mu ne kutiba aleykum siyaamu kama kutiba alasi min xablikum daf caa teg laalakum tattaquun moo tax loolu ñaare léeg-léeg kiñ koy laaj du mën a wax ne bàyyil koor gi mbaa lebal koor gi déedéet comme koor gi diggante waa ji la ak boroomam moom mooy seet rek ndax li ko yàlla gàll daf ko ne àttanuma ko wala daf ne ko àttan naa ko comme seen diggante la rek nañ ko ko bàyyee waaye daal yàlla nee na teguñu luñ mënul lum ñu teg mën nañ ko mu des nag waa ji nga xam ne day liggéey ndax day def ak njàmbaar wala day wax ne ah mënuma ko naa toog li feeg yaa ngi wax mënuma ko léeg-léeg ci àdduna doo ko man da ko jëm man rek ñoo doon dem badar nun lañ defoon ba man yëf ya du dëgg euh, sunu mag ñit ku ci nekk jaar na ci koor foo xam ne nu jaar fa nun ñi ak koor xaw naa jafe kon daal koor moom diggante waa ji la ak boroomam man nga defal mënoo moom xam na man nga wala mënuloo yàlla nañ man ñun ñëpp nag ba man koo màng ndax suñ motulaa daana wax ne koorkat du fanweeri fan ñu ne ko ñaata fan la mu nëf ko juróom dong la ah mu ne waaw ndax bëccëg yi dong la ñuy woor bugg de ñu fanaanee lekk wa <laughs> shukran kii nee na ab soxnaloo boo xam ne dafa tawatoon nu entré ko hôpital bi muy entré hôpital nag dafa àndoon ak mbaax dafa gisoon mbaaxam nu opéré ko ci ginnaaw loolu nag euh, mbir mi taxaw waaye euh, opération bi mënu ko mayu ko mu sangu pour mu mun a sangu set daal mun a julli léegi nu muy def lu muy julli alhamdulilah bu ko dalatee ni muy def mooy day laaj ngeganaay ca ngeganaay ya tiim ca ngeganaay la julli waxtoom mu rek lay def su fekkee suuf amu fa aw xeer amu fa ngeganaay la muy ngeganaayoo lay laaj tiim ca ngeganaay la julli ay farataam su fekkee mën na ko su fekkee dem na ba tiim sax mënu ko nag ni muy def mooy nam tëdd ca jaaxaan noonu lay jullee ndax julli moom boo munta taxaw taxawal wéeru boo munta taxaw wéeru toogal boo munta toog toogal wéeru ñeent yooyu boo ko mënul nag ba neexee wetul ba neexee jaaxaanal ba la neexee defeenul wallahu taala alam wa shukran ci laaj bu am solo bi kii nee na dafa nekk ak këram gisee ak moom ci farat ak sunna sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na feebar dab ko jëkkër ji abandonné ko di ko tong at ak genn wàll ci biir kër gi xanaa soññu jëkkër ji ne ko ku ànd ak nit ba mu tële ngor fa des ngor a fa des sàmm ngor gi mu sàmm ngor gi rek waaye bu fekkee ku tële sa moroom bàyyi ngor day dàqu dem na sunu génn góor ca dakaar jabar ja di am feebar ñu tuddee jalis defe naa lañ koy wax nga xam ne semaine bu jot mu def ko ñaari yoon góor ga jaay na otoom jaay na ñaari këram ba dese kër gi mu dëkk mu tay la ko di jafaaj jabar ja ba jabar ja faatu bi jabar ji faatoo mu teg ci juróom benn weer xamu juróom ñaar faatu loolooy ngor lu dëgg démb dañ tey sax tey lañ ma fi nettali benn nettali bu daw sama yaram ci dëkk bi walla ci réew mi dañ ma baal ndax jàngalekat moom lu mu dégg dana ko wax <laughs> dañu ne ma daa am xale bu nekk fii di yëngutoo ko yëngutu ba yàlla may ko këyit mu xëy liggéey yàlla may ko liggéey mu liggéey ba weer dee mu ñëw ne baay ja na am ku ñibbi ci maag yow na am ku ñibbi ci maag yow kaay nga ñibbi Sénégal may liggéey mbaa mu ñibbi ngay liggéey waaye baay yaa aya tey duggal ci waañ mi ma raxasala ndabi duñ ko fi bokk def mukk loolu ngor la gu am solo waaye bind la gu réeréer kon kii itam na jaay ngor rek ànd nga ak jigéen ba mu tëlee bokk leen ko ànd rek nga ànd ak ngor àdduna xëyul sotti te itam ku yàlla fay li nga def ci lu baax ëllëg doo ko rëccu wasa ko ci laaj bi gént gént gént di liñ ci wax mooy lu am la ba dama ci alxuraan ca géntu yusufa ga saxal na ko fa ba demee ci sóoratu alfatx ca géwantug yonantu ga saxal na ko fa kon gént lu am la waaye nag dafa dafa dafa telaf luy telaf mooy butéel bi buñ ko defoon soow mu tal maanaam soow muñ njërul ma naan ba mu toll fii ma yokk ndox jox ustaas mu naan ba mu tollaat fa mu yokk ndox mu jox kii mu naan ba mu toll fa buñ àggee ci soixante-dix personnes ndox lañuy naan wala saw la ñuy naan ndox nun la gént mel bi mu wàcc ci yonent bi soow mu far la bi mu wàcc ci ñun nag soow muñ kooj la soixante-dix fois moo tax gént am na waaye nag comme dafa telef nii amul garanti buy jóge ci suñu borom di ñëw ci yow diggante bi ni wax yu amee garanti gént amee ko garanti waaye daal saa boo géntee te mën a takk sa gént gi am na lu muy tekki léeg-léeg nga xam ko nag léeg doo ko xam waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne ku dëgër fit kook mën koo nekk ci li géwant mooy la nangam lay tekki nga dem muy tekki leneen grande ligne yi la borom téere yi bind ñoom Abdoulaye ibn Sirin ak ñi mel ñoom et des nag ay mbir la yoo xam ne mii suñu borom moo ko jox gaa yi wallahu taala alam wa shukran ci laajam bam sala bi kii nee na mu ngi laaj nee na fii réew mii nu nekk nee na ñoom suñu gisee mbaax comme ni nga ko waxee sànq seen serviette yooyu ci mbalit bi koy sànni te comme yow da nga wax ne jinne mun na leen ci dugg lan moo ciy pexe jërëjëf li ciy pexe mooy yàlla bindul ku seexlu boppam yàlla bindul ko seexlu boppam muy benn yàlla bindul ku bañ xetuk boppam muy ñaar yàlla bindul ko bañ jëmmi boppam nogay li muy ñaaw ñaaw bu dinaa ko gis léeg-léeg mu ngàbb seetu bay def nii du jubbanti te li ma xam ci ñu ñaaw moo ci gën a ñaaw <laughs> waaye naa ko gis muy muy seetu donc yàlla ay yu doy waar la def foofu nit du seex lu boppam du du du ñaaw lu boppam nit moo tax su fekkee jigéen gis na baaxam serviette yii xew léegi mu jëfandikoo bala koo sànni na ko fóot ba mu set bala koo sànni na ko fóot ba mu set bu fóotee ba mu set nag fu ko neex na def waaye deret ji taq ceeg lépp nga jël rek sànni ko noonu loolu la ñuy bañ ndax jinne yi dañ koy maraatu te maraatu bi ñu koy def mën naa am effet bu muy def ci yow gis nga bu ñu toogee Saalum Ibrahima njaay jàkkaarloog tele bi dafa am lu ñuy tuddee tele télécommande gis nga tele télécommande fii laay toog tele ba nekk fële su ma ne nii rek mu def jeexantal ca moom moo tax deret jooju jóge ci yow tam mook télécommande bi ñoo yem bu ko jinne ji maraatu yow mii lay maraatu kon nag ñu maytu ko fóot ko ba mu set door koo sànni wasa kuran ci laaj ba am solo bi nee na kii njabar ak kii dem ci njabarkat bi ñoom ñaar ñëpp lan mooy seen àtte ñooyem benn àtte kii jabarlu ak ki ñuy jabaral mu nangu ne dañ koy jabar ak ki toog na day jabaraate ñëpp la mu Muawiya waxoon ne yonent bi nee nañ leen rey kon jabarloog jabaraate ñaar yëpp lañ bañ ba sukkuraan ci laaj bi. jërëjëf oustaz kii moom annonce la bu nu fi joxee ñu ne groupe xam sa diine ñooy organiser benn conférence le 12 mai fii ci Pieve di Soligo fi soxna Kayre di jàngale conférence bi nag mu ngi tàmbale midi ñu ngi si invité ñëpp di ñaan mu ñëw teew groupe xam sa diine muy ay soxna lañu yoo xame ne dañu daje di jàng am na ñu si jàng am na ñu si mokkal am na ñu si mokkalul waaye dañu ànd nekk benn di nafar di jàngal di jàngale di fàttali compté seen biir donc le 12 mai ñoom ñooy def seen conférence fële si Pierre Gilles ñu ci oo ñëpp midi nga conférence bi di tàmbali incha allah soxna xay soxna mooy def waxtaan bi macha allah jërë ngeen jëf ñu kon kii mu ngi laaj nee na su fekkente ne dafa nekk ci yoon wala mu nekk di liggéey <laughs> euh, julli jot fekk mu bugg yeesal pour julli te dàll yi mu tàkk dàll yi mu sol mënu koo tàkk nee naka lay maase naka lay masaaha kawas bi naka la ko war a defee ak nan la ko war a defee ak kan la ko war a def jërëjëf euh, mbokk mi déy na ma léegi ni ma dafa bëgg ñu ñaanal Serigne Mbacke Sylla yàlla may ko ñaareel xanaa ma wax ko ne ko sëriñ si la am na ñaareel waaw kon ñaan nga nangu na sëriñ Mbàkke Sylla am na ñaareel macha allah <laughs> te sawar naa ci ñaanal ko it mu amum ñetteel waaw <laughs> ah, ndax boo takkee benn jabar dugg nga musiba boo ñaareelee musiba dugg na la boo amee benn jabar dugg nga musiba boo ñaareelee musiba dugg na la boo ñetteelee génn nga ci musiba boo ñeenteelee musiba génn ci yow donc maa ngi ñaanal suñu mbàkk ngeen koy ñaan yàlla na ñaan yi nangu euh, ku sol ay dàll jàpp jot ngay jàpp bëgg ca masa liñ la ko may mooy bu fekkee tukki woo vingt quatre heures bu fekkee da tukki may la ko quarante huit heures masaa masaaye mooy dangay jàpp ba agsi ragg say tànk nga sol dàll yooyee li feeg summi ko booy masaa da ngay jàpp ba agsi ca tooyal sa loxo raay ko ci kaw dàll wi daal raay wee ci kaw dàll wi mu dem noonu la ñuy masaay ci kaw ci kaw ci ci dàll bu dee su set boo xam ne bi tam wu dëgër la telefut lool nga xam ne mën nga cee dox fii ba fële su boobaa moom tam mooy mooy jël àq bale mooy jël benn atte bi wallahu mooy alam ko shukran ci laaj ba am solo bi. mu ngi wax naan yéene ko ndax dañu ko war a yeesal bés bu jot wala dañu koy yéene rek ci bi koor yi di tàmbali rek mu yóbbaale weer bi yow. jërëjëf borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax waaye wax ji ci lë gën a lëng mooy fa man shahida minkum shahra falyasum hu bi mu ne falyasum hu mooy dañoo takk koor gépp def ko wenn say kon soo duggee ci bis bu njëkk bi boo yéenee falyasum hu mooy koor gi yëpp nga yéene boo dogee ci biir koor gi nag booy tàmbaliwaat da nga yéenewaat waaye doo def guddi gu jot nga yéene guddi gu jot nga yéene guddi gu jot nga yéene da nga koy yéene benn yéene rek incha allah li feeg dogoo wallahu taala alam wa shukran ci laaj bi jërëjëf oustaz kii moom mu ngi laaj mu ne jëw jëw ci xel ndax xaraam na <laughs> déedéet jëw ci xel de xaraamut leen daal ci xel rek moo xaraam mooy xel mooy xalaat nan lay tàqalee mooru ko jag bàcc sunu borom ne loo ko waxalaat moom naa la duma waaw mu ne inna lazina yuhibbuuna dégg nga yuhibbuuna an tashi al faisa fi lazina amanu yàlla nee na ko xalaat ne danaa yàq diggante diw ak diw même soo ko yàqu dinaa la duma boobu rek laa xam ci kii waaye nag jëw ci mu xel moom bu ci yàlla duma bu doon ci duma ñun ñëpp moo tax yàlla duñu jàppi jëw ci mu xel insha allah wa kii moom nee na dafa bëgg nga baaxee loo xam ne daal muslaay la ci seytaane oh, am na solo lool lii musal nit ci seytaane maam suñ tubaa ko waxoon waaja da koy dégg mu naan auzu billaahi mina seytaani rajiim auzu billaahi mina seytaani mu ne wool leen ma ndongo loolu ñu woo ko mu ñëw mu ne ko damaa dégg naan auzu billaahi mina seytaani rajiim mu ne ko waaw mu ne ko loo ci jublu mu ne xanaa bëgg mu ci ci rek mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam waaw soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la waaye li fekk yaa ngi yor yëfam mu lay topp kon ku bëgg mu ci seytaane dangay bàyyi yëfam yëfi seytaane mooy jëf ju jëf ju rafetut wax ju jubut jëw a xasaate yooyu seytaane ko moom li fekk yaa ngi ci yaa ngi ci yëfam du la bàyyi boo na ko fu ñukk rek mu la fu ñukk ndax talu la wa shukran kii moom mu ngi laajte nee na ndax jafandikoo njabar pour dindi njabar dagan na euh, borom xam-xam yi nangu nañ ko bu fekkee ne njabar gi njabar doo nga ko mën a dindi ñu ne dagan na nga jabar pour dindi njabar am na ñu ne nag mën nga faa bàyyi njabar dindi ko ci lu dagan waaw nit ki dañ koy jabar am na yooyu def ci lislaam téerewula ko te day dañ alayhi salaam jox na ci ay firnde jàng ayatul kursi yu ca la bokk ah bu ñu jabaree nit euh, takk ko xala ña ngi cay tegtale jël xobi sidéem li mat juróom-ñaari xob jël lu ñu xorom boole ca tucc tuccal ko sangoo donc soo ko dee seetlu kooku mi ngi dindi ak njabar te dindiwu ko ci njabar ma taxaw la maay nag boobu moo leen gënal wallahu taala alam wa shukran yàlla bu ñu jabar kenn kii moom mu ngi laajte nee na am na soxna nekk na ak moom fukki ak juróom daanaka yàlla dénku leen bant mu ragal ne na ñi euh, nga doon wax sànq laxas ci lan moo ciy pexe waaw nit day bu toogee jabaram ñu am ñetti weer te dara xewut sol aw dàll jot na bu solew dàllam day dem ci docteur bi mu ne ko jox ma matière sàngam bu seetee matière bi da koy wax ne matière bi moo sikk wala dara ni ci daan ko jigéen ki jox ma matière sàngam bu ko joxee bu ko seetee nekk ko bi moo sikk wala dara ni ci bu fekkee ñoom ñaar ku ci nekk nag matière bi nga yor dara rësi ku ci ci la ñu war dem nag seeti ba xam ak njabar la am déet waaye fee la ñuy njëkkee bu demee nag seeti mu ne ko dara sikku ci kii mun ne ko dara sikku ci ci la ñuy xool ba xam léegi ndax jinne la walla njabar la su fekkee jinne la wala njabar la moom loola borom xam-xam yi mën nañ cee bind lu ko dindi waaye su dee feebar nag docteur yi ñoom jog ñoo ko mën a faj wallahu taala alam wa shukran ci laaj ba am solo bi jërëjëf oustaz kii mu ngi laajte nee na wàññi julli ci kuy tukki kañ nan la ak su fekkente ne yaa ngi def ñaata kilomètre maanaam moom mooy waaw laaj bi am na solo ku jóge woon fii dem ci dëkk boo xam ne diggante dëkk baag bii ñu nekk mat na juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent te da ngay dem tey bu subaa nga ñibbi si mbaa ginnaaw suba 84 da ngay dem tey bu subaa nga ñibbi mbaa ginnaaw suba kooka may nañ ko mu boole tisbaar ak takkusaan boole timis ak gee te tisbaar ak takkusaan bu ci nekk ñaar la géey bi tam ñaar rek lay doon wallahu taala alama sukkuran ci laaj jërëjëf oustaz kii nee na daal euh, dafa bugg euh, aaya bi nga xam ne dafa nekk ci suratul jumua mu yaa ayyuha alladina amanu ida nga wax ko daal euh, lu ci <laughs> aajo waaw ab ujaaj la bu ñu ma ta seeloon ca màkkatal mukarrama mu ne ma dama am laaj boo xam ne mi Coloniano laa ko jëmale foofu lu wax ne dëkk bi. Coloniano waaw mu ne ma foofa laa ko jëmale xam naa ko dem mooma <laughs> ca mun naa lañ tase woon xaw ma ci màkk ak aj màkk daal la woon wala boog ca Kaaba ga. Uh-huh. yaa llazina aamanu suñu borom dafa am ñu muy woo uh-huh. dafa am ñu mu woo tudde leen ñi ma gëm mooy leen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ma yéen laa bëgg a waxal. kaay leen wuy si ma yaakaar naa ñëppay ñëw mu ne isaa nuudiya bu ñu noddatee lis salaati ngir bëgg julli ndax noddu ajjuma am na goo xam ne gi julli gi taxul dañuy noddu pour yëgle genn gi dañuy nodd pour soññe ji dañuy noddu pour julli mooy bi ñuy nodd te imaam tàmbalee li xam xaw ma tàmbalee xutba mu ne isaa nuudiya bu ñu noddatee lis salaati ngir julli ga min mil jumaati ci bisub ajjuma fa ca saasa fasaw waaxu leen ila salaati jëm ca julli ga wa darul bay'a te bàyyi njënd meeg njaay meeg taksi meeg lépp daalikum lii ma leen wax nag la lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuuna te su ngeen amoon xam-xam da xam ne defal ma lii moo gën li ngeen defal seen patron bi fa isaa xuddi salaatu fu julle ga noppee nag fa ca saasa intasiru tasaaroo waat leen ka jëm ca ditaa ba dem ka jëm ca machine ba dem kay jàngi jàngi kay jàngale jàngi fantasiru fil ardi wa btaxu min fadlillah ngeen wut sama wërsëg wa shukran ci laajam ba am kii nee na dafay julli ak ay soxna mu gàkk ndax soxna yi mën nañ koo sabbaal jiitew jigéen gàkk duñ la sabbaal ku jiitew jigéen gàkk duñ la sabbaal bu dee góor day sabbaal bu dee jigéen day dóor pooj ba mbaa mu fottasu al tasbiixu li rijaal wa tasfiixu li nisaa su fekkee gàkk nga mu mu def li ni yëg dangaa gàkk munoo jàll nee fa ñukk saar wa dem ci weneen wooyab wala bu dee am nga ci ay kay jeex na du waa ji day julli Dakar dégg nga sëriñ Cheikh waa ji daa ñëw Dakar ñuy waxtaan moom yàgg rek ñu ne ana ko fi jóge Tiwaawan rek góor ga ne man ñu ne ko comme yaa jóge Tiwaawan yaa nuy jiite mu song saar wu mu gëj a song parce que xam nga buñ la <laughs> buñ la jiitalee te nga gëj ci foog nga woon gaa yi ne nangam rek mu dal wa samaay wa taarix <laughs> wa ma adraka ma taarix ad nañ mu saaxib in kul nafsin lama alayha xaafisun xaafisun munta jàll mu ne xaafisun xaafisun munta jàll am na ci biir nit ñi kum bokkaloon daara te kooku daara ji ñëpp ko raw kooku ne ko fal yansuru mu mu continuer julli ga waaye daal sëlmal rek song ko ne kenn du wax fa leen suru mu na ko daga cee jot mu ne ko bilaay wax nga dëgg bi la ta jot waaye gis nga alxuraan foo gëj bul ko song ah foo gëj daal bul ko song boo ko songee rek ngeen baal ma yéen lébu yi lébu ba day julli jàng faati bu mu jeex rek mu dal abasa xoolal abasa rek julli si julli timis waaw léegi mënut a wellu ñaari baat abasa watawale watawale watawale watawale ñëpp ne tekk rek benn lébu ne ko fa nga fa ngaa sob fa ngaa war na yem ci gone yi <laughs> falax ak naas yi <laughs> wallahu taala alam wa shukran <laughs> kii nee na moom chauffeur la chauffeur bu camion la day def long trajet muy laaj ndax su li ko dal du tukki moom day liggéey day tourné day jawla moo tax moom liñ may kuy tukki duñ koo ko may moom buy julli na matal tey julli ca waxtu ya su ko mënul julli ca waxtu ya mu fexe ba euh, di julli ci camion bi tey dawal waaye ñàkk julli moom duñ ko ko may benn ñaar ba boole gi it comme tukkiwut duñ ko ko may ak wàññi Euh, taabal bi nu mu mel nii nee nañu moom moo ko defar nii macha allah macha kon nag nu ngi koy ñaanal euh, di ko ziar bu baax a baax nu wax leen rek ne euh, waxtu bi daanaka jot na ni nu ko waxee woon ci njëlbeen na ñépp tàllal loxo yi nu jox Oustaz Assane mu ñaan nu àndandoo ñaanandoo ñaan suñu borom mu may nu su déwénee incha allahu nu dajewaat fii kenn bañ koo manqué amiin bismillah fii ci port noonu ñu ngi ci oo ñëpp Oustaz Alioune Fall ci Vicenza bi nga xam ne moo nekk ci wetu lak laago bi kon ñu ngi ci invité ñëpp ñu dem ko le 11 avril ci la le avril 2020 ci la ñuy def gàmmu sëñ Babacar di def fii ci Tréviso le avril 2020 lay tombé avril 2020 incha allah yàlla na ci yàlla